asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Sénégal euh, damay def vidéo bu gàtt rek pour waxtaanee benn situation bu nekk di am depuis ay fan muy lu metti lool ci xol euh, en tant que doomu aadama mais en tant que jigéen vidéo bi may def nii maa ngi koy def ci situation de détention bu Coro Mandela journaliste Walfadjri pas parce que qu'il est journaliste mais parce que c'est une femme parce que doomu aadama la je crois que justice ñun ñëpp nangu nañu ni ak lu mënti nekkan ah, du ma dugg dans le fond parce que xawma lan moo nekk ci dossier bi donc du loolu mooy soloy wax bi soloy wax bi mooy Sénégal dañu nekk réew moo xam ne dañu signer toute sortes de conventions internationales signer tous les traités yi nekk ci àdduna bi yépp les droits humains les défenses des personnes vulnérables les droits de la femme et Thioro Mandela est une femme et plus qu'une femme c'est une femme en état de grossesse une femme qui porte la vie en elle une femme qui est en train de concevoir li gën a sacré ci doomu aadama mooy doom nekk ci diggante yu lëndëm ndax ñépp xam nañ ni ku ëmb dara jotu la sax sa baqan mu ngi ci diggante dund ak dee à plus forte raison nga nekk en état ñu lay teg yenn métital yi di la teg yenn situation yi nga xam ni situation yu metti la ndaxte jigéen bu dem ba dépasser sept mois de grossesse nga téye ko en détention tëj ko kaso au nom de la justice rendue au nom du peuple, quel que soit le délit que cette femme ait pu faire ou aurait pu faire, je ne vois pas l'urgence d'arrêter une femme en état de grossesse avancée. Qu'est-ce que la justice gagne à cela Soro Mandela a un domicile liggéey elle peut être mise sous contrôle judiciaire au moment où on met des Sénégalais yu dara jotul sous contrôle judiciaire dañ taqal ay bracelet électronique on prend une femme en état de grossesse avancée ñu tëj ko ci kaso pas benn fan pas ñaari fan mais ay fani fan ay semaine yi semaine ana ministre de la femme ana ñu yor protection des des des couches vulnérables ana président de la république mi sañ a taxaw di wax dëkku jàmm dëkku jalo ana dëkk bi ñu jàpp ni ñoom ay nitu jàmm lañu ñëpp toog noppi ñu accepté ñun Sénégal am na plainte bu war a mën a urgent jigéen bu wérul ëmb ba diis ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi jigéen boobu bu rayoon nit sax ñu mën a xaar ba yàlla ñëw ci moom ndaxte nag jigéen bu ëmb yaa ngi ci loxo suñu boroom surtout nag ëmb Sénégal te ëmb di lu diis di lu sacré ndaxte nga bëgg jur beneen bakkan bu mel ni sa bos bakkan boobu nekk ci sa biir là on fait pas seulement du mal à Thioro Mandela mais on le fait à son futur enfant on ne met pas sa vie seulement en danger, on met la vie de son futur bébé en danger. kañ la nekk ay nit kañ la ñuy revenir à la raison contexte bi ñu nekk ni dafa nekk contexte soi-disant dinaa ci ñëw fan yi ay waxi dialogue ay waxi jàmm ñépp a ngi wax nag gis naa ay organisation société civile ay religieux ay ñeneen ak ñeneen ku nekk ngi yore bâton de pèlerin soi-disant di wax waxi jaloo yéen ñépp dama li ngeen war a wax te mat a wax te ëpp wax mooy jigéen bi nekk jigéen bi wérul te nekk ci diggante nañu ko bàyyi mu dem këram ba yàlla may ko jàmm bu ko yàlla mayee jàmm ba mu wasin ci jàmm ak salaam ba uuf ay doomam bu yàlla bu suñu bu boobaa buñ ko waree woo ci yoon ñu woo ko ci yoon ak ci jàmm ak salaam bu jaree nañ ko takkal bracelet électronique mais ñu ko libere dëkk bi nag da ngeen di tànn seen ay combat ak seen ay priorité ak seen ay ak seen urgence ku nekk ngi wax ci li ko ñor lan moo gën a am importance bakkanu doomu aadama lan moo gën a am importance suturee jigéen bu ëmb jigéen bu ëmb ba diis jigéen bu ëmb ba toll fi mu toll jël ko tëj ko ci kaso ñu jël ko tëj ko ci kaso dara gënul am importance loolu jigéen mooy wax yaay mooy wax mag mooy wax ndaxte am naa rakk am naa doom xam naa lan mooy nekk ci diggante donc sama kàddu yi kàddu pour ñu libérer Thioro Mandela la kaddu pour justice ak état wak ñi nga xam ne suba ba ngoon yéen a ngi wax waxi jàmm waxi taxaw waxu waxtaan waxu toog waxi joxante loxo lan moo gën a am solo Thioro Mandela mi ñu tëj ci kaso bi lan la mën a jëriñ justice doomam ji ne ci diggante guddi ak bëccëg lan la mën a jëriñ justice ngeen bàyyi ko mu dem këram wasin ci jàmm ak salaam lan la mën a wàññi justice donc vraiment je fais cette vidéo que je veux très courte pour la libération de Thioro Mandela je me elle par rapport a ce qu'elle est en train de vivre en tant que femme en tant que femme enceinte je le répète encore xaw ma lan moo nekk ci dossier bi bu fekkente ne dafa def loo xamante ne yoon daf ko ko war a toppee terewul ngeen bàyyi ko mu ñibbi këram ba yàlla may ko jàmm ngeen doog ko woo teg ko ci yoon parce que nag li ngeen def priorité yéen ak urgence yéen kese yéen la concerné fii y a d'autres choses beaucoup plus urgentes yu ngeen bàyyi muy dox kon nag que Thioro Mandela soit libéré mais aussi que les organisations des femmes ki nga xam ni fu ñu leen dégg ñu nekk ci ay protection de femme gis nga une femme elle reste femme une femme en état de grossesse avancée c'est une femme vulnérable coupable comme innocente elle reste femme il faut que cette femme ñu apporter ko suñu soutien pour que doomam ji mu ëmb mu war a mën a juddoo feneen fudul ci prison wala ci boppam moom ci jëm boppam mu nekk en danger doomam nekk en danger ban plainte moo fi urgent we noonu ban plainte moo fi urgent we noonu lu mu war a mënti def war ngeen ko mën a bàyyi mu dem këram ñibbi këram ne ci jàmm ba keroog yàlla may ko jàmm nekk leen ay nit c'est quoi ce pays c'est quoi ce Sénégal que je ne reconnais plus un Sénégal qui prend des femmes enceintes qui les jette en prison normal et la vie continue et on parle de si et de ça c'est vraiment déplorable